سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن استرشد برشدهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين خدام الطريقة التجانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجلين دي نيو دي زيار زيارة تبرك واستمداد di ñaan yàlla boole ñu defal yiw defal ñu barke alquranul karim defal ñu itam suturas biir ak suturas bitti defal ñu ak mucc ëllëg yowmal qiyaama eh, nangul ñu itam sunu koor waaw koor gi xaw naa xaw naa xaw naa ñagas lool nag dëgg yàlla eh, ñetti fan yiñ ci amagun yëpp daal mel na ni Eh, xaw naa xaw naa tàng waaw xam naa ñi sant mbay ak ñi sant loo ak ñaseen yi ak wàddeen yi ak sama mbokk yi sant siise dafa ma maa xamul ñu ngi wooram de waaye xam naa ne moom dana dana doy waar lool tey nag yàlla dafa dogal ca onze heures ba quatorze heures ñu nekk di dox xam naa moo tax tey moom xaw metti torop biñ jullee tisbaar lañ bëggoon a def leçon bi waaye mu tàng lool ndax tey bu dee Louga 41 degré seen tàngoor ci ay 15 heures mu dem 42 xam nga dafa moo gën a tàng sax démb ndax démb 39 la fii ci Louga moom tàng na fi fii ci Louga moom tàng na fi waaye yàlla yàlla def ko yiw yàlla yàlla def ko yiw. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee tey dañuy ñëw ci sunu juróom ñetteelu bind ci suuratu shuara bind ba lee paase ñu ngi ci doon jàng xaw mu noox niti yonent yàlla noox ña tey ñuy jàng astaghfirullah xawmu hóod lañ doon jàng tey ñuy jàng qawmu saalix te mooy samud ak qawmu luut sunu borom wax ni بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين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 weddi woon nañ almursaliin ndaw ya ndaw ya leen yàlla yónnee woon wala bokk almursaliin almursaliin yonant ya boo ci weddee benn rekk waddi nga weddi nga ñépp id qaala ba mu leen waxee axuuhum seen mbokk ma saalixun di yonent yàlla saalix bam leen waxee ala tattaquun xanaa du ngeen ragal yàlla xanaa du ngeen bàyyi xel yàlla ba bàyyi xërëm yi ngeen di jaamu inni man kat rasulun ndaw laa lakum ñeel leen aminun bu di aji wóor yàlla moo ma yónni ci yéen fattaqullaha ragal leen yàlla wa atiuni te ngeen topp ma وما أسألكم تلاج ملين عليه تلي و ديو لاج ملين تمن أجرين تبدرم ولا تك فاي من دي إن أجري سمك فاي نكل إلا على رب العالمين لدول تي اللمي برم بندفي أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المفسد أمر المسرفين واو من لن أتتركون أتتركون فيما هاهنا آمنين atutrakuna man ndax da ngeen a defe ni dañ leen di bàyyi fii ma haahuna ci li nekk fii ci àdduna bi aami nii na ngeen di way dal fu leen neex tukki dem lu leen neex lekk ngeen di fi sax ba faaw te du ngeen fi jóge mandax ndax da ngeen a defe ne dañ leen fi bàyyi ngeen nekk fi nekk goo xam ne du ngeen fi jóge nekk ci jàmm rek ndax loolu ngeen yaakaar moo nekk ndax da ngeen a defe ne leen di bàyyi fii ngeen nekk aminiina fii jannatin ci seen tool yu naat yi wa uyunin ak seen ndox yu bari yi wa zuruin ak seen mbay mi wan naxlin ak tàndarma yi tàndarma yi nga xam ne taluha ma hadim aji nooy la mandax ndax da ngeen yaakaar dañ leen di bàyyi ci noos gu mel nii nekk ci ay tool yu naat ngelaw lu neex di la wupp ndox yi di daw ah, mbay mi rafet tàndarma yu gudd ca kaw meññant mi bari lool ba noppi nooy man ndax da ngeen a defee ne euh, noonu rekk ngeen di nekke hmm. tax lu mat bàyyi xel la nit ki war naa xam ne fii du kenn du fi sax dafa am waykat bu doon woy ci wolof naan ndegam rasul a xëy na mes xam ngeen ne fii kenn du fi des ku nekk war nay muñ ta xool buru yàlla gëm ay dogalam démb bi ma génnee xool naaj wi naaj wi mel na lu weex ci man taxawaayu bisu pénc rek la ma fàttali bi yonent bi di wax sallallahu alayhi wa sallam ni bu boobaa naaj wi dana tar lool te e, dal e, e, ñépp dañuy fëndaañu duñ sol dàll te duñ sol mbubb duñ sol tubéy ñéppay rafle te góor ñëpp aat la ñuy doon mbuñu ko yin dindee woon ci seen zakara yi sax day dellu si waat góor ñëpp aat la ñuy doon sayidatuna Aïcha ne ah mbaa góor ñaak jigéen ña duñ xoolante kon yonent bi ne duñ ko tal nit ñi ñu gurgur leen jinne yi wër leen malaaka yi ñëw wër leen wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii a yowma idin bi jahannam yowma idin yatadakkaru l insaanu wa anna lahu dikra yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal boo ko xalaatee rek te wóoru la ni da nga bokk ci ñi yàlla di keral ca suufu kera keram ndax balaa nga xam ne ker am na solo danga koy ñàkk boo ñàkkee ker ngay xam ne ker am na solo balaa nga xam ne ndox am na solo danga koy ñàkk waaye fii ak yaa ngi koy am man ngaa réere soloom moo tax boo wooree ba digg bëccëg boo nekkee fu tàng nga génn ci kër gi xool naaj wi diggante bi ngay dox dem jàkka ji dikkaat foofu man nga fee fàttaliku sa borom bu baax a baax ndax danga xam ni danga xam ni ndegam naaj wii ku la ci futti woon taxawal la ci waxtu nga alku naaju bisu penc wële nga xam ne sunu borom par kenn kenn lay àtte nit ñi ca ba mu commencé bind nit te ba léegi bàyyeegul ba ca nit ka mujj bind kenn ku ci nekk loo mas a def ñu lijjanti ko kenn par kenn te am na ñoo xam ne téeméeri at lañ dund am na ñu dund ñaar téeméeri at am na ñu dund juróom fukki at nituk juróom fukki at rek lu mu wax ak lu mu def. ñu war koo lijjanti loola dana dana yàgg torop du yàgg ci sunu boroom nag waaye dana dana yàgg ci ku texee di torop waaw kon yal nañu yàlla musal rek te defal ñu sutura kon nag bu àdduna neex ba nga defe ne doo fi jóg bu mu neex mukk ba nga defe ne doo fi jóg sa jëmm ji nu mën a def ñu suul ko ci suuf nanga ko bàyyi xel moo tax mu ne leen atutrakuuna ma ndax da defe ne dañ leen di bàyyi fii ma haahunaa ci li nekk fii ci àdduna bi ngeen di fi poyteefu aaminiina di way dal fii jannaatin ci ay tool yu naat wa uyunin ak i ndox yu bari wa zuruuin ak i mbay wa naxlin ak i tàndarma yooyu taluhaa meññent ma hadiim aji nooy la man ndax dangeen di yaakaar dañ leen di bàyyi fu mel nii wa tanxituuna ngeen di ngeen di yet waaw ngeen di bu buyuutan ay kër ay néeg minal jibaali ci montagne yi faarihiina di tiitaru ndax ñoom yàlla mayoon na leen ñoom nitu yonante yàlla saalix yàlla mayoon na leen kàttanuk ak xereñuk dañuy dem ba ci xeer ya ca montagne ñu yett fa kër yett ci ay nek dëkk ci ñu di ko tiitaroo nag buy ngeraw seen yoon buy taw seen yoon ndax ñoom am nañ ay dëkkuwaay yu wóor mu ne leen man ndax da ngeen a defe ni ci seen dëkkuwaay yooyu ngeen yett ci montagne yi ngeen di dëkk ba faw di dal di dund seen mbay yi te du ngeen fi jóge ndax loolu ngeen defe fattaqullaha ragal leen yàlla wa atiuni te ngeen topp ma wala tutiu te bu leen topp amral musrifin ndigalu yàqkat yi bu leen topp ndigalu yàqkat yi yàqkat yan alladina yufsiduna fil ardi ñi nga xam ne dañuy yàq ci kaw suuf wala yuslixoon te duñu defar du duñu yéwénal dara yàq rek waaw mel na ay golo ci tool الذين يفسدون في الأرض نيغا خامني داني ياق تي سوف ولا يصلحون ولا يصلحون تا دونو يويل واو هم بام لين واخه لولو با لين يونت يالا صالح واخه لولو ني تونت كو qaalu innama anta min almusaxarin qaalu ñu ne ko innama anta yow daal gis nga innama ji ni muy xasroo wax ji ñoom defeetuñ ne defeetuñ maanaam li ñuy wax ñoom dafa mel ne daf leen a wóor ñu ne ko yow nag dëgg dëgg innama anta yow daal minal musaxarin bokk nga ci ñu ñu njabar ñi yow lañ lay liggéey yow li ngay wax nii kuñ liggéey kay wax waaw ñoom xanaa yonentu yàlla saalih kese wala bokk ñoom ca la ñu xam ana ku kuñ mas a gis muy wax lu mel ne li yonentu yàlla saalih di wax xanaa kon yonentu yàlla saalih kese lañ mas a liggéey kon eh, li muy wax wax yi dëgg la waaye du waxi ku sa sagoom ñoom dañoo jàpp ne yonentu yàlla saalih lii muy wax nii waxi ku àndul ak xelam la koo xam ne dañ koo liggéey koo xam ne dañ koo njabar ba pare daal di dogu ci seen wax ndax gis nga ni waxe waxee innama ant yow daal di xasru wax ci qalu ñu ne ko innama anta yow dal min al musah min al musahharin ndeke dañ la liggey yi nga ñuy wax naan do ngeen fi joge du ngeen fi saxat duguna fi génn na fi ma anta illa basharun misluna fatina bi ayatin in kunta min as-sadiqin ñu ne ko maa anta yow daal doo kenn kenn illa basharun lu ak nit ñu koy wax yonent yàlla saalix mislanaa kom ñun dañuy lekk ngay lekk ñuy naan ngay naan nit nga rek maa anta yow daal doo kenn illa basharun lu dul ak nit mislu mislu naa gu mel ne ñun fati fati bi ayatin indil ñu kéemtaan in kunta min as-sadiqin bu fekkee wax nga dëgg bu fekkee yow bu fekkee li nga ñuy wax dëgg la waxal sa borom mi la yónni naka nañu génneel ak gëléem ca xeer wee montagne wee na ci génnee ak gëléem laaj bi laaju dof la liñ ko laaj laaju dof la loolu dofa koy wax génn ñaanal yàlla mu génnee am xar ci garab gi loolu laaju dof la waa ju dof la mooy laaju ku ñàkk teggin la laaju ku weddi la waaye sunu borom man na lépp mën naa génnee gëléem fu ne mën na koo génne ci ndox mi mën na koo génne ci suuf si mën na koo génnee ci gëléem mën na koo génnee sax ci bëy comme ni mu ko mën a génnee ci montagne ñoom bëggoon a dëggalal saalix nekk nit nga comme ñun mënoo luñ amoo luñ amul xamoo luñ xamul nee nañ ko yow ma anta illa basharun misluna nit nga comme ñun bu fekkee nag da ngaa rax nga xam ne yow da ngaa am lu kenn amul wala nga man lu kenn mënul wala nga xam lu kenn xamul indil ñu kéemtaan boo xam ne ñun mënuñu mënuñu mënuñu koo am léegi montagne bi waxal sa borom mi nga xam ne nee nga moo la yónni nañu ci génneel ak gëléem waaw yonente yàlla saalix daal di ñaan yàlla gennel ka gellem ga ca xero wa ca montagne ba ba gellem ga genné qala hadhihi naqatullah laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu'in suin fa yaqudakum adabu yawmin azim qala munelen hadhihi li naqatullah gellemuk yàlla astaghfirullah naqatun هذه ناقة كي yeneen أرمو أم ناقة الله mais fii naaqatun rek la moom la bind haadihi naaqatun waaw nee na mu ne leen haadihi lii naaqatun ak gëléem la gëléem gi nag lahaa ñeel na ko shirbun ak naan walakum yéen itam ñeel na leen shirbu yawmin maalum naanuk bis bu ñu xam maanaam da dangeen di ay ayloo naan gi bu ngeen naanee ci teen bi tey ngeen root bu ëllëgee gëléem gi mooy naan bu ci ëllëg saa yéen yéenay naan moom bis bi ngeen di aaye naan moom du naan waaye yéen bis bi gëléem gi aaye naan du ngeen naan waaw da ngeen ni muñ ndox mi ba ëllëg waaw am na ñu ko nettalee xissa bi sax ne bis bu aayee naan bu ngoonee ngeen ratt ko waaw bu ngoonee ngeen rott ko waaye ala kulli xaalin daal euh, gëléem gi mujj na nekk nattu ci seen kaw xam nga yàlla euh, dafa am loo xam ne bëggu ko bëggul ku ñàkk teggin nit ki bu defee ak ñàkk teggin ñàkk teggin gi ci kawam lay xëppwaat rek moo tax bi ñuy laaj saalix loolu te jàpp ne lu lu lu lu lu yàlla mënul la te jàpp ne saalix mënu la am kéemtaan bu mel noonu ñàkki teggin googu ñu ko won te sunu borom dafa wax ne man aada li waliyan faqad aadantuhu bil bi te yonent yi ñoo jiitu ci awliyaullah ndax bu ñu bu ñu nekkoon ay awliya ci sunu borom duñ am nubuwa ah mu ngoog comme que man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi ñoom ñu noonu yonent yàlla saalix wolbatiku dévier ko ñàkke ko teggin ci laaj yu mel nii sunu borom tontu ba noppi jël tontu bi sëf leen ko léegi nag gëléem gi ak sëf ak sëf lay doon ci ñoom mu ne leen nag gëléem gaa ngi nii génn na yéen a ko doon laaj mu ngi nii génn na léegi nag da ngeen di ay ayloo mënatuñ koo bañ bu ngeen naanee tey boo lëgee mooy naan mu ne leen nag wala tamassuha bi suu in daf leen di dàkkaafu ndax bu leen dàkkaafuwul xam na ni ñoom duñ ko mën a muñ moo tax mu ne leen wala suuxaa bu leen ko laale bi suu in ci benn ñawteef na ngeen bàyyi gëléem gi noonu bu leen ko laal seen yoon nekku ci bis bu ngeen waree root aaye root root leen naan bu aaye naan bàyyi leen ko mu naan wala suuxaa bi suu in bu leen ko laal benn ñawteef su ngeen ko defee day fa yaxudakum du yàgg dara waaw du yàgg dara fa yaxudakum dana leen jàpp adabu yawmin azim mbugalum bis bu tar maanaam bis dana ñëw mbugal mu metti wàcc ci seen kaw bis bu ngeen laalee gëléem yi ci safaan waaye gaaña ba ñu demee ba ay ay looga soof leen ñoom d'accordatuñ ci ay ayloo looga ñu ne nañ rey gëléem ga nañ rey gëléem gi li ci gën a bari nag dëkk boo dem da nga fa fekk ak ñaxar fàlla ngoo xam ne moom mooy mafitu dëkk ba lu ñuy joxañ moo koy laal lu ñuy junj moo koy wax ñu ne koy rey mu ne man daal di jiite ñu daldi dem daal di rey gëléem ga waaw fa aqaruha ñu daal di koy rey waaye ba ñu ko reyee fa asbaxu ñu mujj naadimiina di rëccu te mbugal ma ñëwawul ndax wóor na leen ne mbugal mi day yegg si yàggatul ñoom mësu ñoo xam yonent yàlla saaleh ci wax lu amul Eh, weddi woon nañ ko ba ñaan loo ko ba ñaan ko gëléem guy génne ci montagne gi ñaan nag gëléem gi génne na ci montagne bi kon kooku bu ne leen mbugal dana ñëw kooku kenn du ko mën a weddi yonent yàlla saalix boole ko fullam rek fullaam rek jàpp njaamuram xam ne mbugal mi dana ñëw ñoom it nag ñuy rëccu am na ay xisas yu ñuy nettali foofu nag xam naa ni moom du jar di ko nettali ndax eh, bu tafaasir yi moom boo leen toppee léeg-léeg ñu nettali ay xisa doy waar yoo xam ne daanaka du jar topp wala du jar di jël temps bu bari nee na fa aqaruha ñu daal di koy rey ñu rey gëléem nga fa asbaxu ñu mujj naadimiina di way rëccu fa axadathum fa axadahum al azabu inna fi dalika la ayatan wa ma kaana aksaruhum na fa axadahum mu jàpp leen al azabu mbugal ma mbugal ma jàpp leen te mooy yàlla yabal malaaka ma fa ñoom mu ñëw ba tiim leen xaacu fa amma samuudu fa uhliku bi taaxiya xaacu xaacu gu xumb goo xam ne kenn mënu koo dékku ñoom ñëpp dañoo jekk-jekk ne kekk kekkeeral wow koŋ ne gëlëng fi suuf nga xam ni yal nañu ci déggu doy yal nañu ci déggu doy mais xaal ba dëgg-dëgg yàllaa ko mën a melal xaal ba dëgg-dëgg nañ alko yàllaa ko mën a melal yow jàppal rek ci fa axadahu mu jàpp leen al adaabu mbugal ma mu woyof lool ci yow ndax dalu la waaye metti lool ci ñoom ndax ñoom la dal ñu di ko dund nag ba fi mu toll nii ba ilaa yawmil qiyaamati ba ilaa jahannama yàlla nañu yàlla musal ci safara sunu borom nee na ba ñu ñaanee yonent yàlla saalih mu génne leen gëléem mu génne leen gëléem ca montagne ma mu ni leen bu ko rey ñu rey gëléem ga ba tax mbugal ma wàcc ci seen kaw lool yi day inna fi dalika nekk na ca la aayatan kéemtaan wa ak kaana aktharuhum waaye li ëpp ci ñoom day nekkuñu muminina di way gëm gis nga wa ak kaana aktharuhum muminin damiru aktharuhum mën naa dellu ci nitu samuud li ëpp ci ñoom gëmuñu waaye mën naa dellu ci xeetu yonent bi ñi yàlla yónni yonent bi ci ñoom ñoom day nettali nañ leen lii waaye teewul wa maa kaana aksaruhum muminin lii de kéemtaan a ngi ci waaye taxul taxul ñu gëm li ëpp ci ñoom gëmuñu waaye nag ñàkk gëm googa lu muy wàññi yàlla dara du ko wàññi dara wa inna rabbaka la huwa al azizu rahim moo tax du ko wàññi dara wa inna rabbaka sa borom la huwa mooy damirul faslu boobu li muy liggéey foofu rëy na waxul wa inna rabbaka al azizu de la huwa ni ngay yéegee maanaam ci arab doo ko mën a waxee ci wolof mu ne eh, wa inna rabbaka naka sa borom la huwa mooy al azizu ku tedd ki tedd ngay jafe moo tax buñ ko gëmul itam du ko wàññi dara ar rahimu mooy ki am yërmande ca ña ko gëm kon foofu la euh, suuratu shuara yam ak ñun ci qissa samuud nitu yonent yàlla saalih euh, xam naa foofu la ñuy taxawee bëggoon nañ cee boole sax xaw mu luut waye dañuy taxawee fofu rek ci qawm salih insha allah nena na kaddabat weddi wonna samud giru samud al mursalin yonantiya iz qala lahum bamulen waxe akhuhum sen mbokuma seen mbokk ma saalixun yonent yàlla saalix ala tattaquun xanaa du ngeen bàyyi xel yàlla inni naka man kat lakum ñeel leen rasulun ndaw laa aminun lu fattaqullaha ragal leen yàlla wa atiuni te ngeen topp ma wa ma asalukum laajuma leen alayhi ci lii min ajrin ci gennuk fay in ajriya sama fay dal nekkul illa ala rabbil alamin lu dul ci borom mbindeef yi a tutrakuuna ma ndax da ngeen a defe ne def leen di bàyyi fii ma haahuna ci li nekk ci fii ci àdduna bi aamini na ngeen di way dal di nekk ci jàmm fii jannaatin ci ay tool yu naat wa uyunin ak i ndox yu bari wa zuruuin ak i mbay mu bari wa naxlin ak i garabu tàndarma yu bari yoo xam ne taluha meññent ma hadimun aj nooy la wa tanxituuna ngeen di yett min jibaali ci montagne yi buyuutan ay kër faarihiina di tiitaru fattaqullaha ragal leen yàlla wa atiicuuni te ngeen topp ma wala tutiicu te bu leen topp amral musrifin mbiru way yàq ñi alladina ña nga xam ne yufsiduuna fil ard dañuy yàq ci kaw suuf wala yuslixuun te duñu yéwénal qaalu gaañe ne ko innama anta yow daal ndeke yow bokk nga minal musaxarina ci ñi ñu liggéey ñi ma anta yow daal doo kenn illa basharun lu dul nit naa comme ñun fati indil bi ayatin ci kéemtaan in kunta ndem nekk nga min as-saadiqina di bokk ci way dëggu ñi qaala mu leen haadihi lii naaqatun gëléem la lahaa ñeel na ko shirbun ak ayug naan shirbun ayug naan walakum ñeel na leen shirbu yawmin maalum ayug naanuk ci bis bu ñu xam wala tamassuuhaa te bu leen ko laal bi suu in ci ñaawteef su ngeen ko defee fa yaqudakum dana leen jàpp aadaabu yawmin azim mbugalum bis bu metti fa aqaruuhaa ñu rey gëléem ga fa asbahu ñu mujj نادمين ديرتشو فأخذهم جابلين العذاب مبغلما إن في ذلك نكنا تلولي لا آية كمتان وآية وما كان نكول أكثرهم لأبتي نيوم مؤمنين ديويقم وإن ربك تصبرهم لهو موي العزيز كي تد تد جفة الرحيم كي أمير منه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون